passeport diplomatique danaka jaxase na régime mu président Macky Sall mu tàmbale woon ci milieu artistes yi ñaari at a ngi nii tàmbale foofu ñëw ci ñaari député yi nga xamante ni treizième législature la ñu bokkoon ñoom ñu jàpp leen ci mbirum traficu passeport diplomatique ñu tëj leen kenn ki six mois keneen ki cinq mois ci prison ferme. passeport diplomatique ñu ko doon gis danaka ci bërëb yu bëree moonte de ñi nga xamante ni dañuy liggéeyal état Sénégal fu ci wàllu yoon ñoo ko war a am bi lu mu wax moom mooy ñi ko war a am ñooy ñi nga xamante ni ay jëwriñu gouvernement bi lañu wala ñoo xamante ni ci institution yi la ñuy liggéeyee moo xam ñu nekk ay wala ay fonctionnaires yoo xamante ne bitim réew la ñu nekk toggal fa état Sénégal loolu yëpp ci ñëw góor gu bees bi loi bi daanaka dañu ko gën a dooleel ci ni ñu koy appliqué benn député bu assemblée nationale loi bi dal ci kawam lu mu wax moom mooy loolu du yoon ñi nga xamante ni ñoo njiit ci bees yi dañu war a sàmm ëllëg xol lu rafet ñu koy def ñi nga xamante ni ay ancien ministre lañu woon ñooñu bu yàgg la ñu tàmbali woon di tukki balaa Macky Sall doon fi toog mu nekk mer goo xamante ni ñi nekk ci bopp réew mi tey ji li lañ ci wax am nay ay texte wante kenn mësul appliqué luwaay bu njëkk mooy kan ma war am passeport diplomatique beneen bi mooy kan moo ko warul am léegi loi bi dina appliqué wu ci ñëpp mu nekk dogal boo xamante ni état Sénégal moo ko jël ci nguru président Bassirou Diomaye fay li ñu daan gis nag ay passeport diplomatique ñu koy joxe fu nekk loolu doon mandargaal défaillance su état ci ay kayit wante tamit ci diplomatie bu Sénégal